ñu ngi euh, toog ak nga xamante mooy Asiatu euh, di mère am mère ami Aïcha Ba Aïcha ñu ngi leen Tamba maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay mais da nga da nga lu xew tey bisu mbégte la nga war a reetaan wala kontaan voilà nga mel ne stressé nii lu xew non juste écran yi la rek d'accord comme ni ma ko waxee sànq bisu mbégte la Aïcha depuis combien d'années ngeen commencé ànd bi ngeen amee ñaata ngeen en fait man avant moo tuxu fii bu mu dëkkee woon ci xaye fekk boobu man bu bees laa moom laa njëkk a xam fekk boobu ñu ngi jàng arabe je pense que ay 12 ans 13 ans la ñu xamante euh, depuis boobu après en tout cas en suñu en face daal ñun ñoo foowoondoo affaire yooyu noonu waaw non si koñ bi fële après nag ñu garder contact ñuy waxtaan ba léegi ndeysaan ba léegi euh, xameel na mu ak Sadio Mané ñu commencé xamante ndax ko wala Aïcha daf man tamit dama surpris comme ñëpp yëguma ko woon mais amoon naa si doute mais yëguma ko woon daal waxuma ko woon rek mais dama ko doon dégg si ay rumeur kese mais yaakaaruma ko woon tamit. lan nga si amee ay doute da doon gis ay message Sadio si portable am wala. non non non non parce maanaam boog. maanaam boog sekkuñu woon euh, ay affaire de copain affaire yooyu noonu mais suñu waxtaan bu bëri saa bu ñu gisante dañuy fàttaliku daal ñu doon da toj toj luñ doon def <laughs> bêtise luñ doon def en plus ak arabe bi ama bu ñu nekkee xale kii danaan kii daa nopp kii kii dafa nopp kii kii dafa nopp kii léegi genre léegi si loolu lañ daan topp ma naan ko Aïcha yaa ngi fàttaliku kii ba mu la doon envoyé lettre bind lettre bi ma koy yóbbu <laughs> loolu daal laa xam ne daal jot nañ ko dund daal. Aïcha enfance am ban ban genre nit la. Hmm, Aïcha nag moom nit bu timit la franchement man mii bon lii moom yàlla moo ko tudd wax dëgg yàlla parce que moom borom baax la en yaayam tamit macha allah daf ma dama ñëw mu yaatal ma këram daal mu def ma comme doomam papam aussi la même chose waaw. relation ak Sadio Mané mosu si waxtaan ak yow vieux que sa xarit la. non non saa moom je croyais que c'était privé comme man rek man tamit sama vie de relation tamit bon kenn xamu ko daal même sama parents yi sax du ma leen si may accès. bi nga yëgee nouvelle bi quest que ça t'a bi nga xëyee xëy rek ñu ne Aïcha dañ koy may Sadio Mané. dama def. dama def le nom de Sadio Mané. non dama ne attends mais xam naa ne daal amoo ay mbokk lañu woon. mais yaakaaroo ma ko woon tamit affaire bi daf ma surprise daf ma surprise trop sax yaakaaru ma ko woon non non. kañ la ko wax kañ la la wax ne Sadio Mané daf mooy tax ak yooyu. Hmm, apparemment ay côté deux semaines yooyu noonu mais bon gëmee ma ko parce que bi ma koy wax dama foogoon day foo noonu ma ne ko ah yow booy bu ma sonal ma damaa sonn affaire yooyu noonu. mais après bi ma ko gisee ci TikTok bi mu ne ma ah wax pourtant waxoon naa la ko de c'était effectivement comme ça. ma ko kon macha allah yal na leen yàlla sàmb lafa leen cat aussi ndax nit ñi moom wax. merci. alors ba léegi ñu ngi kër Aïcha Aïcha Tamba di soxna Sadio Mané ñuy waxtaan ak famille bi ñu toog ak ñi nga xamante ni bokk ci bàjjan yi soxna si ñu lay nuyu baala nga présenté wu. maa ngi leen sant di leen gërëm maa ngi tudd Ouray maa ngi dëkk Jaxaay Parcelles Assainies unité 11 nijaayi xale bi ñuy takk papaam bu ndaw muy Lamine Tamba moo ma jëlee Parcelles Assainies unité 15 bu ma Jaxaay ma ñëw tubaab fakal la ñu yaatal ma wan ma Jaxaay ba ma ñëwee fa laa fekk Aïcha mi mu nekk xale bu tuuti maa fekk samay doom waaw Sadio nag dama koy wax ni am na jabar macha allah ndax xale bi yaayam baax na baayam baax na ay maamam baax nañ seen waa kër macha allah wa dëgg yàlla am na jabar di leen ñaanal nag yàlla sàmm leen ba seen sëy bi buñ ci gis dara lu leen jaaxal yàlla lafal leen cat ak làmmiñ. d'accord bala nga bala ñoo ñëw ci ñaan bi ak euh, témoignage yi doon wax un Aïcha ci wàllu jikkoom parce que ñu bëri ñuy wax ni aysa dafa jot na mokkal alxuraan maanaam yàlla daf ko xër ci diine geeg yooyu loolu lan nga ci wax. dëgg la mën naa ci seede dara ndax li ma lay wax nii mook sama doom bu góor ñoo jàngandoo alxuraan d'ailleurs kooku ba mu ko yëgee sax dana ma yaay ban Aïcha Aïcha bi ñu doon jàngal law ci daara ji ma ne ko Aïcha boobu la kon li ñu wax noonu dëgg la macha allah gis nga ko day muuru. am na diine tey na yar nañ ko wax dëgg yàlla. ñu bëri doon xalaat na ah, ah, Sadio Mané ci tubaab yi lay dalak yooyu nu mu daree ci <laughs> kii noonu la ko gisee. Mm, Sadio dafa xool fu baax rek fa mu gënee la ko tànnee xam nga saajo yàlla dogal na moom dafa simple moo tax mu xool ñu simple mu dugg ci ñoom xam nga nee nañ euh, montre yu baax yi ñoo bokk heure noonu la demee nag waaw. Euh, d'accord léegi euh, Sadio Mané ngeen war a nekk ci benn monde bi dugaat ci beneen monde li tax moo ko mooy saajo Mané àddina bi yëpp ko xam. ngeen war a nekk ay gorom doo yëg-yëg boobu naka lañ koy dundee. sant yàlla rek sant yàlla parce que yàlla moom ay mbiram mën na lu ne mën na lu ne macha allah sante ko yàlla bu wér. lañ koy defee yàlla euh, tey boo leen amoon loo leen xelal Sadio Mané euh, say yombul ngeen war ko dénk seen doom loo koy xelal. xanaa di ko dénk mu jàppal ñu ko rek uufal ñu ko bu baax def ko comme sëram. te ñun am nañ ci njort bu rafet sax ndax Sadio moom ku ko xam ne xool xam ne mën naa téye jigéen ndax man li ma gën a neex ci moom mooy simplicité am waaw man simplicité moo ma gën a neex ci moom te ku góor bu melee noonu rek war na mën a téye jigéen ñu ngi koy dénk daal mu téye ñu Aïcha ndax Aïcha xale la wax dëgg yàlla macha allah xamul dara waaw nañu ko téyeel loolu daal lañ koy ñaan. maa ngi lay fay. ci bàjjen yi ko <laughs> waaw. mais euh, sànq maa ngi dégg beneen bàjjenam bi di wax naan Aïcha du xale TikTok. nekkul daal ci internet bi moom. non non moom bokkul ci yooyu ndax bu ci bokkoon gis ngeen ko bu yàgg ndax war ngeen war ngeen jabar saajo Mané ba sonn mais gisoo leen ko def nañ montage bu nekk mais gisuñu ko tey jii te ko ñëpp xam ne kii mooy jabaram mooy soxna Aïcha macha allah du xale TikTok du xale Facebook xamul dara demul dikkul. alxuraan la xam jàng école wàcc jàpp julli. changement ñaata million la ko may. ah non sëñ bi ñun yooyu ñun bu waa Casamance xamuñu loolu man mii di wax ak yow joolaa laa ñun xamuñu loolu wax lu ñu def jéem di ko publier ñun xamuñu loolu ñun suñu diine ñu loolu ñun lépp ci sutura la. gar bi maam ku wax 1 million 10 million ku wax daal la nga wax lu la neex mais kenn. ku ko wax rek da ngaa wax lu la neex ñun fii lépp ci sutura la bañ nañ ba takk bi yéen wër ngeen fu nekk. pour xam fan la fan la takk bi nekk mais 17 bi ñun door a xam fan la parce que lii dañ ko def lépp ci sutura takk simple lañu wax mais xam nga rek ñu ne lu la ëpp lu la lu la mën xaw ma ëpp la doole. waaw moo tax yëf yi moom devin nii rek nëbbatu nañ ba sonn mais yéen moom kenn mënu leen nëbbatu il faut ngeen fexe ba jeex jeex ba gis moo tax waaw. Ah, waaw mais bésu mbégte tamit jarul nëbb. waaw loolu tamit dëgg la jarul nëbb mais xam nga rek dëkk bi moo doy waar moo tax xoola rek yëf yi dañ koo nëbbatu mais xoola nu mu ëppee loxo à la fin dañoo mujjee woo ay policiers jàppale ñu ci biir kër gi xam nga dafa métti koñ baa ngi ne xat ak yooyu yëf yi daal dafa métti macha allah mais sant yàlla borom bés bee ko moom parce que Sadio Mané dafa rëy borom bés bi moo jar lii te xam nga saajo Mané fépp fu mun mënta dugg ko tur bi rek nu mu rëyee il faut yëf yi demee ni ñun xamoon nañ yëf nu mu métti métti nii lay demee man moom wax naa nee naa ne dañuy nëbatu rek mais 5 moom bu jotee journaliste bu fi ñëwul ma ne man dootuma joolaa waaw macha allah donc bëggoon nañoo xam relation ak Sadio fan la tukkee naka la demee ba saajo def ko soxna ndax moom xale la xamul dara donc relation boobu naka la demee. waaw xale la xamul dara mais xam nga de euh, xale bi soose la Sadio soose la maanaam waa Casamance lañu waaw xam nga yëf yi mooy loolu Sadio Mané nuñ ko xatee Sadio Mané ak euh, famille xale bi ay mbokk lañu benn lañu. comme yëf yi ci mbokk la commencé ba tey lii am daal. ñi mën na deux ans et demi. bon dañuy wax lu leen ne yëf yi lu yàgg kooku deux mot na lan Papa Aïssa moo ne mot na deux ans et demi waaw mën na nekk ban xam nga wax si biti laa dul gëm mais wax ba nga xam ne si waa kër gi la boobu mën naa ko gëm bu nekkee papa ma ko wax rek loolu am na. dafa waroon xaar ba coupe d'Afrique bi paase ak yooyu loolu noo ko gisee. lu yàlla bind kenn mënu ci dara. ñu ne taal bu yàlla taal ku ko nar a fay rek yaay fay lii yàlla tey la ko bindoon ci aras tey la war a am kenn mënu ci dara waaw. ban conseil ngeen di jox xale bi bi ko xale la te aussi dafa dugg ci beneen vie boo xamante ni bokkul ak vie bi mu daan dund ban conseil ngeen koy jox pour mu mën a tey seen ndax divorce yi taux bi dafa dafa élevé de trop surtout si génération bi nga xam ne moom la ñu nekk. foofu dama ci sawar pour tontu la macha allah ndax ñun dañoo dëkk ak yaayam jaxaay mu nekk ci kër gu mag di sëy wax dëgg yàlla sëyee fenu rafet barke Serigne Saliou keroog bi ma déggee nouvelle bi xam nga lan laa wax xale bi mérité na ko ndax yaayam dafa sëy yaayam sëykat la kon ñun am nañ njott ne Aïcha dina sëy ndax yaama mi ko jur sëykat la muñkat la te man dama ko naw ci loolu ndax man mii di wax ak yow sëykat la te xale bu jigéen bu nekkee ci kër di sëy di muñ rek kooku ku mu jur dina sëy macha allah loolu am nañ ci yaakaar. Sadio da koy yóbbaale Coupe d'Afrique wala da koy bàyyi. loolu moom leeraguñ loolu moom leeruñ. mais mais supporters yi nee na ko na bàyyi ba ñëw. non loolu leeru ma yal na leen yàlla defal jàmm maa leen di sant di leen gërëm ñu yeggali lépp ci jàmm ak salaam ak teraanga. di ñaan di gërëm sama ñaari waajur nag sama yaay sama famille ak sama jëkkër sama njaboot. ak moom ay star ngeen moom. waa di loolu day ca waa koñ jaxaay ñëpp waaw. gërëm <laughs> Sadio Mané. du ay foo de macha allah <laughs> ndax ku nekk ñaan nga yàlla mu Sadio Mané fëggoon sa buntu kër yàlla def nag kër Aïcha la fëgg macha allah